دار يا الله سعي بقاء بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيب ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان تدين فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم أجو برامتي ألا ألاقي رن منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا أولا ينظر أن ينقح الله مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قداس مبتليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت جرى ملاسي سلمت كل يوم ويا نفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم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 جماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم حيا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل الإبداع بنفسي اللي اخترته يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإبداع بنفسي اللي اخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر كل يا الله يا خلق الخلق لغما أساء أبدا بالبير والسر رلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعونا سم وخن الأجر للجماعة يا الله حتى المساور قل للنبي بسارا وساورا ليدون المكر يا الله خذرت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا waaw dañuy sant yàlla rek di julli si yonent bi rek di ñaanal Sëriñ Tuuba rek yal na fi yàgg te wér li ñu def yëpp daal sëñ Tuuba ko waral moo ñu jaral lépp daal moo waral ñu toog fi ci bis bi tey di ñaan yàlla nag yal nañu ko raayaat yu bëree bëri li yàgg nañ koo def sëñ Tuuba daal moo ñu jaral lépp. loolu daal am ci li may wax li may wax nag bëriwul moom Serigne Touba daal joor nañu moo ñu yaral lépp daal moom moo ñu waral bi fii jaay suñu doole fii bu jaruñu lépp loolu daal am ci li may wax. waaw dañu nekk jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul maa ngi bëgg ñëpp di moo organisé lii di ñaan yàlla mu gën sa yokk sax kanam mu a jëm kanam waaw lépp ku tëddi la moo ko waral ku tëddi tax ñuy reen dañu daje fii si biir xale ku tëddi lépp moo ko waral di ko jëlal suñu bàmb rek ci kaw ca man yàlla dafa def ni man tijaan laa mais murid dama leen bëgg sama biir xol yaa ngi dégg tool yi ma taalibe seex la 100 pour cent mais ma murid bu ñu xewlee damay jóg dama leen bëgg man damaa bëgg koo xamante ni dama bëgg sëñ bi sëñ Touba dama ko bëgg waaw moo tax fii ne ma ñëw fi sama grand frère bi Serigne jàppale Bamba si di juste part bi nga ne mooy nii looloo man mu dama leen bëgg dama leen gëm dama leen gëm moo tax tey jii nii mu doon waaw man la wax eh, sant leen ziar ziar ñi di wax safar gi rek lañ ci am maanaam sëñ bi comme la ko liggéeyaloon ñun daal ñoo ci bànneexu ñoo ñuy def ñoo ci fayeeku li ñuy def lu bëri ñu koy sëñ bi waaye du liggéeyal sëñ bi suñu bopp jariñ ñu jëf jël bëgg nanti nag di ini jàppee nii ba ba safar di jeex parce que lu si waay defit sa bopp ko lu jëf jël la ñàkk ni ko maam Cheikh doon rek di ci bëgg bu baax taw feex kese daal di bu baax di TV xam nga ñu leen ñaanal tamit xam nga ñun suñu mbiru bopp la yëfi jolof la ñu leen ñaanal ci tali yi gën a kawe ci Sénégal lépp sëñ Tuubaa mën na ko teg loo ko def barke ko waaw tey bisu samaan la bisu ñëpp la bisu àdduna la bii monde bi ñoo ko bokk ñëpp di gërëm baabay bi sasoo nii moom moo tax du dinañ kese da ko def lii mooy trois ans yàlla na nga yàgg def te njabootam fekkee ko affaire Baay Faal la ñëpp si war a jàpp sëñ Tuubaa amul moroom kooku say fi nekk amul keneen ñëpp dañuy xaar moom mooy un bamba ne amul fayam quoi ñu mu demee fii teew à cause de bamba ak sëñ Touba du keneen waaye bi du zaayar du caaxaan waaye bi du du fo même sëñ bamba amul fo lépp dëgg la ku siy dugg dëgg moo si dugal ku siy génne dëgg moo siy génne ku jàppee caaxaan yaa nax sa bopp jëfe ndigal bàyyi tere loolu leen gëm kese li mu wax noonu dëgg la daara Jolof yëpp aw ma seen fay ñoom la rek ñoo ma ñimeel ñoom booy ñoo ma ñimeel waa dara kese ak waa dara moom seen fay ñoom ñoo may poussé ak sama yaay ji toog ak xaadim ba ma leen ma seen waa tey ñu dégg ñu ma di yaay faa lépp jàpp nañ si liggéey waa dara lépp jàpp nañ si lii daal mbir mi lii la ku tedd gi la man moom moo ko sëriñ dañoo bëgg duñ mën a séddoo muy bu tedd gi muy si di ko saa su ne ñun amuñu lu moom moom lay sant saa ne mu ne woon bis bii bu commencé bu commencé ci ginaar ba si xar ba si gileem ba bëy ba nag lu waay am nag ma ko berndele kon moo tax lañ toll nii شباب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا خمس ألتي فلا كسب ريايا وأبحي الله لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وخوت لي رصايا رساخ يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأولياء إكايا فتاة يا الله علمتني القيبات تعفت منتميئا أتى الأليم لاسين علمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخير نبيك الأدار يا الله بزاك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستي دارين يا الله بذاك يا باسط الأعمال لي بريضا تذكر مبعثتي دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقف منك يا الله ولا إله Remi bamba moy gi ko mom salam wasi wa ma lidwa ad lidik ya allah wajatuka al yawma ya ramanu tadin yam فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي على أولاد يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سرية يا قدوس متليا أني وأنت كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي لا بسم الله إن ولي الله جريجة في سيرين توبا جريجة في سيرين توبا جريجة في سيرين توبا جروا لك من شاء إبراهيم فاوان waaw di santaat Baye Fall yëpp rek ak mbokk talibé yi ba ci mbokk caméraman bi nga xamante ne benn san mu ngi dugg ñu di ziar mbokk talibé di leen balaax te di leen balaax xañ na lii day loo xamante ne maanaam lu nekk dëgg ndax Cheikh Ahmadou Bamb rek moo ko waral ndax ki nga xamante ne benn san moo tax ba bis bi nii di suñu jëruñ la suñu talibé la suñu mbokk talibé la ba ci Marbat nga xamante ne daal bi nga xamante ne ni jëwriñ Pape Diop moo ko jiite waaw jëfaluñ kenn nag ku du si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te Serigne Touba koy jëfal jëfal nga mbooleel ñëpp rek bàyyi woo kenn ndax dane ana muridi laa kon nam ma jëm ci yàlla kon ñëpp la woo waaw lii nag bisul safar li nga xamante ne mooy la set li nga xamante ne maanaam ci wàccaayu màggal bi pour góor yàlla yëpp gën cee xam dégg dégg kenn mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax waññi boo gis rek ci benn la commencé te xaj na daaw defoon nañ ko xaj na mën toon nii waaye ren commencé maa bi nag dëgg la mi ngi mi ngi ñëw ndànk ndànk ndax ñii ñëpp daje wuñ ndax lii amutoon daaw tey bu déwénee incha allah dina gën a yokk bu soobee ki nga xamante nag mooy jëwriñ mooy lëmi li nga xamante ne moo jiite kafe gi moom mi ngi fi moo nekk si wàññi ñun nag dañ koy jàppale si nii rek ndax ay mbokk taalibe ñu moom moo ñu woo pour ñu ñëw si ndax sëñ bas xuma mi ngi seen wér moom mi nga xamante ne moom tamit ci café gi Touba gi lay yëngu ku nekk xam na nag ñun ñi nga xamante ne maam ñoo ko ñëw fekk si amuñu fayam ndax leen dañoo bokk loo xamante ne mënuñu koo sédd te buñ gisee koy dox dëgg la dañuy ñëw dooleel ko biñ amé suñ téeméer suñ ñaar téeméer lépp jox ko mu gëna yok ndax xañ sëriñ bi loolu ko bëggé ñu gëna nekk ben anando yeneen te jàmm nekk ben lu way yëkëti sa morom yëkko lu dal sa nit muy bànneex muy safaan ba loolu lépp lu mu mën di doon bokk talib buñ ko yëgee dañuy ñëw japp comme cameraman bi ni nga ko defee rek yow jawriñ ji ndax benn instant bu la neexon man nga nekk ci yeneen nit waaye xañ na li feeñal sa bëggé tamit dëgg la waaye ñoo ngi lay ñaanal nag yàlla na Serigne Touba mi nga xamante ni moo tax ñuy def li yàlla la yokk ba defal la lu kawe sa njort ba nga yor ay télé télé di sant tamit waa kër bi mooy suñu yaay bi ak soxna yi nga xamante ne ñoo ñu fi yaatal ba ñëw di fi seggee café ndax bu leen neexoon ñoom dafa amee te dëgg la sànq rek bi ñaan dañu ay këru baay Fall lañ waaw kon yaay Fall lañu fekk si ñu leen di sant ñoom di leen gërëm bu baax baax waaw di ñaan daal yàlla na yokk yàlla yokk ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ndax

الله وبي صلى الله وتعالى kanilota pinanga bami ñaan faal bami ñaan faaya la ñaane pinanga addiya seex ñaan yàlla sëñ Tuba dolli léegi dem ba kaw dem ba États-Unis dem ba fu ne fu la waaye nag loolu la woote tey bisib bi laay suñu xol sax nañ lool lool lool lool مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار واملي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما تصر رن إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي انك الجبار دون لقم كل الغدا بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الغدا بلاسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والسلوى رلوان يا الله يا بارع القلق خذ لنا فدعونا سم وخن لي الأجر للجنات يا الله عسى المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو نلمك يا الله خذ أنت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا رابح يا الله غلبت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا خضار يا الله خلقت لي ربيعك دعيت بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسب ريايا وأبحي الله لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وخدت لي رصايا رساخ يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ضاعتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمت للقيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسين علمت يا الله خبرت يا قابل أسرى وانصرفت لخير نبياك الأقدار يا الله بزاك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستي دارين يا الله باسط اعمال لي بريضا ما مبعثتاتي دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رضاك يا رافع بفضل مرتباته بلا انقطاع بفضل منك يا الله رفعت يا زود دارج مرتباته بلا انقطاع بفضل منك يا الله رفعت يا رافع دارج مرتباته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت أمري ثلاثي لا ستئي ستئ خلال ويسا واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلالي ستي الإنس والجنوة سيطان يا الله أسري كلو له وما ما لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أتى عليهم راسي أجر برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليم يميني وعقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدس سري يا قدوس متليا أني وأن كرادي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويوم بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم بنفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وهب أمنا في الدارين يا الله وبالمؤمن لسعد استرايك ما خديت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بلاسي لاخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تلك يا الله يا خالق الخلق لغما أصاب